thank you very much ala barka bake uh, chair ak vice chair ak commission members yi fi daje yëpp mbe chairman Tentula Mba Jayila ana la vice chairman ani commissioner munu bee benta jam seen liggéey rafet na ñu ngi leen a déglu ñu ngi leen a toppa te gis nañ ne li réew mi bugga yéen a ngee taxaw ci loolu alla dookuwo ñiiñaata ale dooku kende ke andunaajo ko bankoɓe lafiri mun na ale wo dookuwo rek du nuyu njiiti diine fi nekk élimaan yi ak ñoom ñëpp mbe diina ñaaton kon konton na almamono ani bee di nuyu faada yi ma fi gis yëpp ñu ñëw teewee fi an jiiti gourmet yi tamit mbe faadanu fanan kontona anen cristalo la ñaaton kono munu yalon koy ɓe maɓe ta ñimɓe ngoto jam dafa mel ni yu bari yoo xam ne bëggoon naa ko wax chairman bi bi mu waxee dafa mel ni tànkana yooyu yëpp aka ah, mulun ko kuma jama kan jama bi jen lafta mum fola bara aka mulun ko wulita diyamuta aka mulun ko ay wo kumo ɓe taale aya keɓ fuduba kilingo kono waaye ñetti yëf bugga naa ñu dëgëral ko bari ku saba laftana wo bambandi je bi wax léegi balal mu secular state mooy pour koo xam ne doomi réew la nga nekk sëriñ nga nekk gurmet nga nekk kuy dem ci tuur yi ngeen em kenn du ëppale kenn yéen ñëpp a em ci réew mi secular state wolom ñinti ko ban ko kan moomorandi bel daarin diinoo mun na yetani wo diinola iɓe laaren kuwowo kuula yetani wo kuwola fo musilmeolomi ti fo christianeolomi ti fo jalambatolalomi ti bari mbe akamalum ko kuma kamo ñiyeñine fri yalla dafa def gambia nekkon sampul ci afrique ala naataka ɗum ko gambia kete taman ser kilinati afrique banko kan jag gourmet ak sérigne do xam kan mooy kan gurmeto anin chris anin a italo na jamalom jamal ngeen bala ma tuuti man suma papa moo njëkka sampa jàkka ci këram Serekunda ali hekkato ñente faama folole jaamengolo Serekunda jang waaye kan moo jur suma papa bari jamalente faa wulu mairie ndong dañ leen tuubal bu tudd Amin Ndong mu jur suma papa te gurmet la woon i ka famu ye mairie Ndong ayam faama a tuubindi a toola Amin Ndong la wala ente faama wulu mairie Ndong moobu magam bu jigéen Elisabeth mu jur Socé toog nii meri ndong adi ay eh, Soosa Njaay wulu Soosa Njaay lay vice chairman wulu mu mbe siri njante waaye suma pa jàkka ji amoon bari mu faamaay eh, misiroo mun loo daara bi gënoon a rëy kombo yëpp suma kër papa la nekk karanta mu warta nu kombo bee abe mu faama la korda la korda kana amee woon daara ji jamaale woon woon daara be nu jamaale alhaaji Mamadou Moutar lii papi baaba lii alhaaji Mamadou Moutar lii baaba lii faama waaye suma pa lim def baram faamaay eh, mu nekkee dama ko gërëm ci loolu naa tentu woo kam baal pour jàmma pour Cairo ak taranga am ci réew mi fukki doom ak juróom yim am yëpp din tan anin lulu ay munu be wulu Kanifing school dem fii Kanifing Christian school i bee karanta Kanifing school danne Christian school o ñun ñëpp góor ñi paas kewon kono momorondi yalon ko yala exam o paas nga dem Saint Augustine high school gourmet ye ko ame i kada Saint Augustine high school le gourmet toon la bije jigéen ñi paas mu ko kono momo yalon koye passé la examen nga dem Saint Joseph's High School i kata Saint Joseph High School le waaye ñu ngee julli ñu ngee toppali suñu diine wax ne leen respect diine ñeneen ñu em fii bu ken gën kenn bu kenn ëppale kenn Yaya Jammeh def na ko àndut ak yoon baaxut waruñ koo def wotaɓe mbe kañan mo kala juto moola woma tinna mbe solola mbe ala batu kam nana dino batu momo laata munna ya batu bari yaya jamme ya kenun janne aɗen sila manta andu moma danko wokumo fana lo homne dafa isi fitna ci rew ye kuwo kolon ka so fitno naati banko ka surtout ñaari fitna day ko wara moytu fitna fula bi ye ñantan hakkilo tulo fitna diine diina la fitno ak fitna xeet ani siyo la fatam fanso fu mu door a folota daawada duy jeex kon nañ leen ko moytu wota bi ma ci bugg a waxati mooy lafta mu fanan folaje dama ñaan TRRC CRC ah, bi mbe CRC fanan daani gisuma ko ci constitution bi maaje constitution la kono ñimmara buku baa kono foo xam ne place nguur la office nguur la mbaa nguur goy ko moom yaaje dawo da mu yalon ko man sa kundala tamu wara man sa kundala do ko dinkiralo wari fa sampa juma wari fa sampa jak e manyana juma lola je manyana jama lola je lutax ma lolu munati namba o fula balale ma please ala yam kunyu balale ma rek balale ma rek man bokana ci ñi nga xamne ndekafuɗa mono kono mum yalon ko man ma sa dawɗa kayraba jawara ño anda saudi arabia ndenen sa dawɗa kayraba jawara letaɗo saudi arabia pour ñu jox ñu jàkka jumaa ci biir banjul pour e jamego din toon la banjul sate kono sa dawɗa sampour ko state house sa dawda man o jaamengolo state house daf ko dem samp ci biir banjul a taataaloo banjul le teema aljuma bu nekk mu taal motoom dem julleg nit ñi juma wo juma a siita a yàlla motoo mala ay taa kabu moon la ye so léegi soo demee kuwardangu say niitaala soo demee ci court house yi niitaala kiiti bu ngonto naka leen faa sampee jàkka say yibe jaamengoloo la jee ñaadi le balaa ngay liggéey si janni bi naa dookoo la julli nga fekka ñibbi nga sa kër loolu ne leen ko jot dëkk yi nga xam ne elloo nañ ko te ñu ngi ci biir Gambie woto alna di saate la munu yalon koy ñanta soto la munu yalon koy be Gambie banko soo demee Latrikunda fii nii ndaada Latrikunda jàng ñu ko ñu dog school bi ya karamu kuntu dox samp fa juma ye jame mbaloje te latrikunda sab latrikunda school fii tam nika latrikunda karamugo to janga be jele to ñenenti juma ñu ngi ci boori latrikunda school jamen sababe latrikunda school bala jamen nani kon lu tañu war a dog school boo xam ne woto mu naata ne ñanta karamugo kuntula karamugo mu wurgee ko ñëpp faa jànga mbele ka karanje muy sëriñ muy gourmet as kafir la ma gourmet la mo nañ faj tampa eh, eh, eh, e computer school wona mira ko computer karambugo ñanta wala loolaji bañu sampo fa e technical training school wala dulamu yalon ko molɓe mecco karanna je ya londe je so julli jotee julli kadi dem seen juma nemmo salo sida salilan yetela jame on to su dem cooj jotee ñi dem cooj dem seen juma min cooj ta ta sida yetela cooj on to bugana loolu ñu def ko ci constitution bi ne lafta yake constitution o kono xam ne nguur gee fa moom man sa kunda tamu dawo daati waruñ fa sampo juma waruñ fa o kala je mañana coojoo ke la je beneen bi ma am bu ma mujjee mbela ban na daame mooy walam ñenti IEC IEC commission na si al commission nanu ñu ne président bi mooy appoint iko président wala ba tombon na parlement ñooy approuve akamul ko parlement wala ba bambandi la su dee président bi parti bi mu taxawal naata ko président ay parti yo mun tombon ñoo ëpp ci parlement bi andi tole la mool fana siyaata député bu ko seen ñi lañ faa def te kon ñun liñ bugga indépendance buñ bugga du fa nekk woto i baaje la koy la moolu i ba wolle kala jee i baaje la kon toon lafta moo siifa mun la wo carte fay banko te won président e camawno tombam akkena ci commission asi anin mo kilin commission on kono civil society tanna kenna munu yalon koye civil society lon hono fana e mono tombon women's bureau tanna kenen women's bureau fana e mo tombon a yenen international organisation ñu tan euh, independent organisation ñu tanna ko ka fon munu fana belori ngi fawne e fana e mono tombon pour independence biñ buga ci IEC mu mun na IEC ay sotono loolu rek soto ka pour nekk doomi réew pour que ke bankoo diŋoti ah dafa ñaaw léegi pour nit ku ñuul ñun ah amanata baaka pontoon moo fi ngo tenti ñuy seet sénégalais nga sénégalais jubee guinéen guinéen o gaana gaanankoo ah, Guinée Bissau Guinée Bissau nkoo di leen wax gan ka fooye ko al toon mu luntaŋol te bankoo balaa tubaab yi di ñëw fii jannin tubaaboon be futa la jang ñun dëkk yooyu yëpp wo bankoolu bee ci benn loxo buur lañ nekkoon di kondom of Mali mbee be man sa kunda kiliŋol koto wala Mali banko la man sa baati suma doom bu jigéen ndi musoo ak jëkkanam ana keema dem Amerika itaata Amerika doom juddu fa ye diŋo soto jee weer kari kiliŋ mu am passeport ay passeport o soto ñun fii ntonu jang ñu ne juróom benni at nko sanji warawula ñu ne fukki at a juróom doon ko sanji tang ani lu dama ne ntala ko man nte taami colonialisme ko waato mu nambe tuba mararo koto suma pa faama dafa jël suma yaay aye mbama taale automatically ka taal wo ñama duro suma yaay nekk gambian akata gambia dingo because she is married to e a gambian atala be futul ka gambia dingo why my mother was a Sierra Leonean and fa bama munu Sierra Leone dingo lati nañ leen seet suñu bopp bu baax oɗo alnan fan korosi ba dama bëgg loolu ngeen seet ko ci constitution labdalali wo korosi constitution pour ñun ñuy toog fii ntol mun siida jang di wax ne nit ku ñuul kaa fo moofiŋo suñ bokka mba baadiŋo ñiñ enslave on ko ye munu yalon ye mala ñu toog hani biin tolu ka si américaine si wo américaine diŋon gen ñoo jox facilities ah, a akamunu ko wonu ka samboo din ton ci man loolu gàcce